monté nañu fii ci dixième ak Mouhamed Diallo ñetti comité man nag may Tamsir Ababacar mbay dëkk euh, commune Fandène ñëwoon fii am kontaan di monté comité bi yàlla def na euh, li ñu waxoon ci règlement bi yëpp respecté nañ ko ñetti comité yëpp euh, monté nañ ko présents yi sax ñoo ëpp ëpp nañu plus de trente cinq te on nous avait autorisé euh, d' avoir cinq présents mais on a plus de trente cinq présents les absents yi barewuñu donc bravo Mohamed Diallo et félicitations merci beaucoup. Euh, man maa ngi tudd Mohamed Diallo responsable politique APR Thiès Ouest tey di dimanche vingt neuf janvier deux mille vingt man maa recevoir ak sama mbooloo bu dixième fii ci quartier dixième les commissaires Tamsi Ababacar Mbaye ak commissaire Mansour Diop du département Mansour Ndione du département ñu ñëwoon tey pour monter les comités comme ni ma ko waxee monté nañ fi trois comités bu njëkk bi man Mouhamed Diallo maa ko jiite deuxième bi Yacine Diop ñetteel bi Khor Diagnan donc tey li am solo mooy c'est les premiers comités wax ngeen ko à Thiès yu ñu monté ñu gëm na ne lii mooy politique terrain ak base te dafa jot ñu sopp ni ñuy defee politique nañ bàyyi politique salon nañu bàyyi politique euh, mbed te dem ci terrain bi wax ak askan bi président li la soxla le président a demandé à ce que les gens montent les comités na ni jublu ci liggéey bi te bàyyi leen lu ñu mënta nekk ak leen lu ñuy def nañ ko bàyyi te dégg ci comité yi vraiment commissaire soo demee neel le superviseur euh, département départemental le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne kontaan nañ ci moom ndax bañ soxlaa carte ñun cinquante cartes la ñu joxoon je dis bien 54 la ñu prévoir woon man maa woo Ansou un des commissaires ne ko wax dëgg yàlla ñun 54 xeeb nañ ko jox ñu 250 ndax bii dixième rek mën nañ fi am lu mu bon bon bon ñetti comité ah commissaire Ansou tamit compréhensif jox ñu carte yi ñu monté tey ci benn bés ñetti comité te nañ monté ji escale monte ji carrière fenn ak fenn nañ fa dem monté ji li am solo mooy dafa jot président gestu waa dixième dafa jot président gestuñu président su bëggee liggéey cees def ñu ciy boole mën nañ fi daara bi Thiès man président Macky Sall laay waxal message bi monsieur le président de la République Macky Sall laa koy adressé président du parti président Macky Sall Thiès boo ko bëggee Thiès Ouest boo ko bëggee ci ñett ñu koy liggéey ñett laax duñ ci génn ñun Mouhamed Diallo ak suñu mbooloo. Thiès Ouest boo ci bëggee dara président République dama koy delluwaat bamtuwaat ko. ñett ñi nga xam ne dañoo bokk ci ngay liggéeyal ñun dañ ciy bokk du chantage du dara mais information kese la jox monsieur le président de la république kon dafa jot. dafa jot ñu jël Thiès Ouest teg ko ci loxo président de la république dafa jot ñu jëlaat croix rouge bii suñu centre de vote ko ci loxo président de la république mos ñu koo ñàkk mais travail de terrain moo manqué woon na te commencé waat nañ ko tàmmal nañ ko te duñu arrêté on va faire tout Thiès Ouest. quartier par quartier fu ñu mënta dugg nañ fa dugg liggéeyal président de la République jox te lu mën nekk la te lu yomb la. indil mbooloo président de République moo gën a yomb ñàkk ko indil moo jafe waaye indi ko ko du dara. voilà benn témoignage rek laa bëgg a def mooy Mohamed Diallo maa ngi déggante ak moom ça fait quelques jours je savais même pas que c' le petit frère à Sophie Diallo la directrice des 3 FPT bi may ñëw fii j'avais moins de 18 ans moom moo ñu encadré yóbbu ñu Allemagne. ça fait des années tey yàlla def mu yor ndomb tànk au niveau du Sénégal kon donc c'est une famille boo xamante ni ils son déterminés donc c'est vrai que war nañ leen féliciter parce que li mu def nii taxawal trois comités ci benn jour loolu yombul donc on vous félicite vraiment yow yaa njëkk taxawal comité fii biir Thiès donc ñu naan la vraiment merci beaucoup et félicitations continuer ci liggéey bi c'est ça le travail le travail de terrain rek leneen nebu fi loolu rek a fi nekk vraiment merci beaucoup. damay sant yàlla di julli ci Seydina Mouhamed di gërëm sama ñaari waajur di gërëm euh, sama goro bi ma àndal ñëw fii ajaratu Kiné njaay di ñaanal sama jëkkër jàmm yu sax dàkk ak sama diggante moom ak mboolem jullit di rafetlu tey lii Mouhamed Diallo def ndéeg Mouhamed Diallo dafa social Mouhamed Diallo mu ci kër yi Mouhamed Diallo mu ngi ci nit ñi feebar Mouhamed Diallo mu ngi ci soxla doomu aadama yi Mouhamed Diallo nit moo ko ñor nit ci boppam moo ko ñor li gën a jafe ci doomu aadama nit la mën ndéeg man nit moo tax yow benn semaine nga organiser si lii mu sotti te dimanche ku nekk xam ne lundi dafa dafa jege da ngay war a xëy liggéey waaye Mouhamed Diallo def na tout ba dixième yëpp ñëw wuy si ko macha allah ñuy rafetlu nag lii tey ñu fi def nii pour rek dooleel président Macky Sall. ñun lii rek lañ am pour fayee ko président Macky Sall ndeg président Macky Sall dafa jëf ñu gis ndeg dafa jëf ñu gis ñun dañ daan jooy suñu doom yi ah suñu jàngaan ba pare dañ daan dem ci dëkk yi di jàngi ji fu mel ni kanada fu mel ni France léegi université yaa ngi fépp liise yaa ngi fépp macha allah ku ci am bac tamit bu la neexee toog fii def sa formation te bu njëkk ba da daan jooy sa yaay jaay lu mu am dem bitim réew te lépp président def na ko kon ñun dafa jot ñu jàppale président Macky Sall li mu perton fii nii dixième vite bureau de vote yooyu moom la Mouhamed Diallo bëgg récupéré waat teg ko ci loxo président Macky Sall ñuy ñaan yàlla nag yàlla nañ ko fekkee ta tal ko te pareeguñu Thiès Ouest bii ñaan nañ yàlla ñun lépp luñ fi mën ñu def ko fi ba président Macky Sall bureau de vote bu mu fi ñàkkoon mu tegaat ci loxoom damaa bëgg ñëpp tàcc loolu. di ñaanal nag Mouhamed Diallo fu mu bëgg a yegg na ko fa yàlla yeggale Mouhamed Diallo mooy nit koo xam ne moo bëgg président Macky Sall ànd gor la ànd ak président Macky Sall chaque jour dama koy wax lu mu am ku mu àndal soo bàyyee président Macky Sall moom mu bàyyi la fa ànd ak président Macky Sall ñoo bokk benn maam macha allah di gërëm tamit sama xarit sama doomu ndey su fi jàll borom 3 FPT suñu rakk ju sës rëkk si ñun te duñu rëkk di ñaanal suñu yaay ji ci biir kër gi ajaratu Béatrice lépp moom la ana lépp moom la moo ñu jàppale bala ñoo commencé tàllal ko suñu loxo mu ñaanal ñu macha allah dañ koy ñaanal fépp fu mu bëgg a yegg yal na ko fa yàlla yeggale président Macky Sall ca kaw ca kanam troisième mandat yëkkati ko teg ko sa loxo yéen ñëpp. Ahmed dafa jot Ahmed dafa jot. waa jaajëf di leen nuyu yéen ñëpp man la Papis Niang euh, nekk responsable politique boo APR ànd ak Ahmed depuis boobu ba léegi ma ànd ak moom kon noonu la demee man damay wax li ma bëgg wax te lii may wax ni à travers ni ma ko waxee bëgg naa mu Macky Sall président de la République du Sénégal jot ci mooy que ñun dañoo sonn ci raay beeg raayal bi ñun ma Ahmed Diallo lañ bëgg mu lonkal ñu ko ndomba parce que ñu di chaque fois di APR di APR di APR liggéey ba sonn bu bu nu heure ndomba baat joxee mu jël ko jox ko ñeneen fii gis nañ fi ñoo xam ne président jox na leen ndomba baat ñoo xam ne Ahmed Diallo mi moo ko gën a mérité ñun nag dañ daan toog di yambare yooyu dafa jeex. ay toog di wax ak di maslaa dafa jeex Ahmed Diallo bu imposé boppam ñun dinañ ko imposé ñun ñu ànd ak moom dafa jël alalam def ko ci parti bi man ànd naa ak moom mu jaay otoom def ci parti bi ànd naa moom mu jaay teene def ci parti bi moom dafa am ñu topp ci ay ginnaawam te ñooñ topp ci ginnaawam moom fonctionnaire rek la munul jël li mu war a jox ay njabootam di ko jox ay nit ñi président ñi ngay jox ndomba baa di jox ci Mouhamed Diallo mii da koo yéyoo te dafa jot dafa jot te nag te ñu duñu duñu duñu duñu lu leer la APR la mais ñun duñu duñu duñu lox lox yi duñu tiit duñu ragal te nag Ahmed Diallo mi bu bëggee ñu ànd ak moom récupérer bureau fo vote dixième bi jox ko yeneen ak yeneen dañuy lonkal Ahmed Diallo na ko recevoir mu toog wax ak moom recevoir ko nag recevoir ko nag ñoom moom suñu bopp ñun ñun Ahmed Diallo la ñu àndal moom la ñu gëm na ko wo waxtaanam gis naa temps yi rek semaine bee rek woo na ay responsable di wax ak ñoom te responsable yooyu ñu sax monter benn comité. tula gannaaw ba ma yàlla. julli ci sang-sang yi maa ngi gërëm samay waajur di leen ñaanal fa ñu tëdd yàlla na suuf sedd ci seen kaw yàlla nañu xippe ci àjjana firdaws di sant euh, sama borom kër di ko ñaanal lu mu mën ren yàlla na mën déwoon lu ko ëpp di yàlla ñaanal yàlla euh, suñu njaboot gi ñu am yàlla na barkeel di sant Mouhamed Diallo ak i mboqam di sant Mouhamed Diallo ak i mboqam macha allah yaay Mouhamed Diallo fa lay commencé. ndax moo ñu dalal fii baax dalal ñu ci këram ñu avec bu mag mbooloo ñëpp topp ñu ñuy def lu rafet di liggéey daañu yuuxu daañu gajjante daañu màttante daañu def lépp ci kër gi waaye kenn du ni mu day sedd li jël lépp parce que éducatrice la elle sait gérer elle sait encadrer elle sait éduquer macha allah ndax nag borom këram famille jàngalekat la. di leen sant bu baax a baax a baax ci seen éducateur éducation bi ñu am waaw di sant waa dixième di sant suñu yaay yi fi nekk di sant suñu papa yi di sant suñu jeeg ji di sant suñu doom yi ndax nag ñoo jàpp ndax bu Ameth Diallo amoon mbooloo wala mu am mu di monter comité te ñoom teewuñu jàppalewuñ ko seedewuñ seede bu rafet kon Ameth du dem kon lii mu def tey du ko mën a def waaye ñoom it dañoo jàpp Ameth Diallo taw bàyyi naam nag amet baax na ndax Ameth ku baax lu baax rek lay def ñoom ñëpp ku ci nekk seede mën nañoo seede loolu fi mu ne koo ci woon kenn ku ci nekk mun naa seede li Ameth Diallo def li Ameth jàll œuvre social bi muy def ci koñ bi bu ouverture jotee xam na li baax ci famille yi bu korite jotee koor jotee xam na li baax ci famille yi bu korite jotee xam na lu ci baax tabaski noonu tamxarit noonu te Amet Diallo yëkkatul tuut su mu am bokk ko ñin te elle il est fonctionnaire comme ñëpp waroon naa mën ne sama salaire bii sama njaboot jii laa koy dundal waaye defu ko bien màq dañ ko koy jox mu romb waa këram génne ko ci biti man mi sama yaay boole na ko ci ñu jox bien màq beneen nit ñeneen ak ñeneen ñeneen fi ñu mu jox bien màq Marème Talla kon duñ ma di ci loolu te mënoon na xajoon na ci këram waaye defu ko ci da koo génne Amet lu mu am génne na ko dencul dara ci këram gardewul dara kon mérité na moom lii Papis Niang wax moom mérité na ko mu jege président de la république mu jox ko ci poste yu baax yi moom jege na moom mérité na président de la république moom Ahmed Diallo ñun moom lañ ko yéene te moom lañ koy ñaanal te dagg ñoddi bu daggul dikk Ahmed ca kaw ca kanam. incha allah li président bëgg na ndax ñun xamuñu président amet la ñu xam pour le moment moom la ñuy xeexal di ko jàppale ba mu àgg ca président te bu soobee yàlla fas yéene nañu takku waa dixième dinañu takku ak carrière ak escale jàppale ko ba mu àgg fa mu bëgg a àgg ñu ngi koy sant bu baax may coordinatrice Yacine Diop balaa ma fàtte woon di di di coordinatrice deuxième euh, kii bi deuxième comité bi waaw di gërëm waa carrière ñi nga xam ne soo Sow Gueye moo ko jiite waa ak euh, ma Awa Sène ak ñeneen ak ñeneen bu ma limee damay juum kon nag kontaan nañ bu baax di sant ñëpp di ñaan yàlla nañu takku bas ni ki tey nag liggéey bi door nag ndax liggéey nag la ñu bëgg liggéey mooñ ko tax a jóg liggéey ñu dañoo tali di wax di tax di wax rek ak di xuloo di xeex loolu moom zéro xayul fii fii cité fonctionnaire la liggéey la ñu xam ku fi dugg ku ne di nga xam ne fii liggéey la ñu xam kon nag ca kaw ca kanam avec Ahmed avec toute la famille avec tout dixième asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ramata Touré maa ngi dëkk fii dixième euh, tonton Ahmed Diallo nag ñun ay xale lañu ñëpp xam nañu xale daanu woon dugg ci politique waaye léegi duñ cee dugg ndax tonton Ahmed Diallo daf ñoo jàppale macha allah ñun gëmuñu kenn ku dul Ahmed Diallo ndax mun ñun mooy sunu président fii ci Thiès fii ci dixième. ñun bu ñu taxawee tey nekk xale di wax c'est grâce à lui ndax daf ñoo convaincre wax ñu loo xamante ne lu dëggu la loo xamante ni fii ku dëggu dëgguwul taxawu fii ndax moom dafa dëggu li muy wax ci bopp di daf koo dëggu dafa dëggu nekk ci moom moo tax ñu topp tonton Ahmed jàllo ñun nag dañuy ñaan président mu jàppaleel ñu suñu tonton bi suñu Ahmed jàllo bi nga xam ni moom la ñu am ci dixième moom la ñu àndal tey moom la ñu àndal suba président bu tegee candidature moom la ñu ñun ñëpp am ni ñu ni nii ay xale ñun ñëpp dañuy voté ji incha allahu rabbi ci ginnaaw tonton Ameth Diallo kon dañ naan président mu jàppal ñu sunu tonton bii nga xam ni moo nekk dixième moo gën ci ñun ci tabaski gën ci ñun ci ci ci korité gën ci ñun ci ouverture des classes yi gën ci ñun ci sunu koñ bii lu ñu xewle moom mooy taxaw te alalam demeewul noonu te pourtant mu ngi ñuy jàppale kon nag dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jàppale président yàlla nekk euh, yàlla am beneen euh, mandat incha allah ñun ñëpp ñu topp ci ginnaawam ci dernier tonton Ameth ñu lay ñaanal ndam rek ci kaw waa macha allah bien màkk ba mu génnee benn doom la woon mu jox ko sama yaay loo xamante ni ñun ay doomam ñoo ko waroon defal mu defal ñu ko ñun tonton Ameth Diallo dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal yàlla fi mu bëgg a egg yàlla na ko suñu borom eggal merci beaucoup.